jërë ngeen jëf artémisia di gàncax gi ñu ne moom la waa Madagascar di fajoo suñu réew di Sénégal mi ngi xool garab gay saf journal l'Observateur moo xëy joxe xibaar bi ci xët mu njëkk leenu ñaan ci wàllu paj essai clinique fa la jëm ak artémisia bi ki leen ko wax mooy professeur Daouda Ndiaye scientifique bu protocole d'essai clinique bi jëm ci wàllu Covid organique gi nee mook ñi mu àndal di liggéey ci protocole bi liggéey nañu ba sottal coronavirus bi mi ngi law bu baax a baax libération nañu sébu bu të tàkk wet gu ne la ñu koy wale li ñu ne mooy faj coronavirus bi ca Madagascar suñu réew di Sénégal mu ngay lijjanti ndax loolee mën naa faj bosam am déet artémisia gi yegsi na Ndakaaru bërki démbu ci ji ba ñu jébbal ko waa direction de la santé ngir ñu càmbar vox populi mel ne ku naan ñu def warees na cee balaa covid gi di yegg cib dayo maanaam li ñu naan pic juróom journal bi ne guddi yi ñu toll na ku nekk ci ñun jàppee boppam cas contact ba tey ci xët mu njëkk vox populi ñu mën faa jàngee beneen xibaar mu di téeméeri doomi aadama yu manqué ñaar yu ñu faj ba ñu génn l'hôpital ci 48 ñu génn maanaam ci ñaari fan mu di lu rëy lu waa kër docteur yi def la sinekaay ne ko waaye terewul ñoom waa kër docteur coronavirus bi mi ngi leen di def lu dara jarul ubbil yéenekaay bi personnel de santé bi la gis na ñoom yu corona ca Medina Gounass ga ca Kolda médecin chef ba fa nekk dafa corona ba ak njabootam quarantaine nañu leen lu quotidien nañu ca médina Gounass googee la fam doy na waar ne ci diirub ñetti fan rek am nañu fa fanweeri cas coronavirus ak ñeent téeméeri doomi aadama ak ñeent fukk ak ñeent ñu fa confiné témoigné nañu Medina Gounass kaala ci biir kaay la fam bu doonub kaala ñu ne cas communautaire la ndax foofee mbooleem li ñuy aay ci couvre-feu bi dara la ñu ci bàyyiwul li ñu santaane ci jamonoy coronavirus bi lu ca bari defuñu ko rassemblement ya ma nga fay am ba léegi nit ñaa ngay àndandoo di julli ji ca bi mujje moo di jëli sandarma teg leen Tamba ngir bu ñu gisee lu jaaduwul rek intervenir intervention bu Xaadim Bamba Diagne ci l'observateur ab économiste la di ko xam-xamam màcc jëm ci wàllu koom nee na wàllu yoon yu ñu jël bu ñu ko wàcc lu coronavirus bi dinañu gën aw demee ndax réew mi mi ngi xelu lu mat sëkk jëm ci musiba maanaam catastrophe Baara Gaye njiital Clean Oil coow topp na ko ci réew mi mi ngi ne gàññi ci journal yi ñu la tribune ak libération ñoom ñëpp xëyee ay mbiram moom takk jabar ci jamono ji nga xam ne dañuy tere dajeek dajaloo mu woo ca këram yëf yi siiw gendarme yi jàpp leen libération nañu mook jabaram ji yëpp ca section recherche bu gendarmerie fa la ñuy fa la defee seen lune de miel l'observateur nañu xale bu jigéen boobee doon marié ak Baara Gueye Adja la tudd ñu gën koo xam ci Zeyna mook jëkkëram Baara Gueye Kilin Oil gendarmerie la ñu mujjee laatr bi nañu du ñoom rek ña newoon ca mariage ba ñu ci mel ne ñaaxarañ loo snapper bu président Macky Sall Alassane Mbaye griot VIP Adja Diallo mannequin à la retraite Ndeye Diouf mu borom sama yaay may ma Papa Ndiaye Ndiaye ñoom ñëpp ak Baara Gaye kilin oyil mi doon takk jabar ñoo nga gendarmerie ñub tëyee cib garde à vue libération nañu xale bu jigéen bi ñu doon takkee ci la bokk dafa dawoon waaye gendarme yi jàpp nañu ko